dama yàgg a liggéey ak ñoom ñu topp ma te lépp lu ma bëgg rek nga ànd man te loola su ma tukkee ñi ngi continuer di liggéey su ma toogee ñi liggéey comme man de mag toog laa yemale ndax am naa xale yoo xam ne nii ñu ngi teeree lu guddi ak bëccëg li ma cee dox naa dangaa bëgg politique waaye loo bëggoon politique yow laa ñun politique ndax dangaa bëgg politique da koo ànd ak nga war a bëgg politique loolu di nuyu nag waa daara mu si nga ànd ak ñëpp duñu sama di di nuyu nag sama rek Xadi Jóob nga xam ne moom la fi ñu nañ ko ñaanal ñu ñëpp da ngay ñu jaayal di ñaanal nag waa allié yi nga xam ne dañoo boole suñu bopp bu ñu bopp képp ku nekk allié rek dañoo boole suñu bopp bu liggéey ci Touba te yaakaar naa liggéey bi ñu liggéey ci Touba président dana xam ne allié yi dugg nañ Touba de ba foog président dana fi am ndam ndax li ñu ñemewul ñoo koy ñeme ndax dañu ñeme ko dama amee Madina ku ci jëlee ko sa kaw na taal sa dox ba mu taal sama kër ne demee seeti ko def seen mbootaay man dem ma seeti kenn ñëw ma ko ñeme naa ci def boo taa ko fan woon def seen i ko ak seen i kër kon nañ ñaan yàlla sëriñ Ba ñu nag ñu ngi fii ci Touba di liggéey di liggéey ñu tënku ñu tamit ci zone yi ñun ñoo ngi nekk zone huit xayra mais dañoo yàgg liggéey ak maire Ndeye Lo ci ay transformation ay formation yoo xam ne yu am solo la pour jigéen ñi di liggéey ak moom ci ay financement yi nga xam ne mi ngi jógee ci monsieur président Thierno di jaar ñuy loxoom te lépp di ñëw ci ñun jigéen ñi jeunesse bi amuñ fayu maire ndax Touba fii da koo liggéey macha allah. Seen Ndeye mi ngi ànd jigéen ñi ci financement yi transformation yi ñun jigéen ñi ñëpp dañuy dañuy dañuy liggéey ndax dañoo mën suñu métier am suñuy diplôme grâce à moom ak monsieur Thierno Lo ñu ngi sant bu baax di gërëm jeunesse bi nga xam ne moom ñëpp moom lañu àndal ak suñu yaay yeeg suñu tante yeeg suñu bàjjen yi di leen gërëm bu baax di wax nag euh, au soir du 31 incha allah ñu ngi ñaan yàlla am majorité à l' nationale. nii nga xam takku ba dëgër ànd ak président Thierno Lo ci mujj di wax ci tourisme nag di sant yàlla leen bu baax a baax bépp formation bu baax rek mu ngi boolee dërëmam ak ñaar dërëmam di ñu ko defal Thierno Lo yi bu baax a baax ñu leen di leen gërëm. soxna bu njaayee ay guddeem ak ay bëccëgam lépp ndax góor gi mu ko muy président Thierno Lo ndax soxna tey jigéen la mais man dama naan jigéen du mën góor la ndax ñoo ànd ci terrain bi bu ñu xëyee suba trois heures du matin wala deux heures la ñu ci déegam fii di ñu àndal bi ñu muus lañ xam nga lan moo tax ma ne ñu muus lañ ndax tey jeunesse bu muus te yeewu rek mooy ànd ak président Macky Sall ku muus te yeewu laa wax ku yeewul na xaw mais ndax tey ñoom boo taxawee ñoom argument yi ñu lay tegal ci président Macky Sall li mu def ci Sénégal li mu def te amul lenn loo xam ne ñu ngi ko ciy sos kon da xam ne ñii ñu bëgg Macky Sall la te ma am sikk ne seen quartier yi Macky Sall lañ koy jox gars yi tàccu leen seen bopp jeunesse bi. maam Thierno Lo nag dafa doon loo xam ne loo bëgg a wax Macky Sall bu doxee ci nopp maam Thierno Lo dana àgg ci Macky Sall kon may waxee ci jeunesse bi nga xam ne ñoo nekk Touba jeunesse bi bëgg liggéey am jom président Macky Sall boo demee ci président Macky Sall ne ko nañu fi may ay usines yoo xam ne jeunes yi dinañ ci mën di liggéey guddi ak bëccëg. waaw nañu ko dolli te xam nañ ne mu ngi liggéey ndax Macky Sall ku ne xam na ne lim mënal waa Touba waa Touba delloo wuñ ko njukkal bi delloo wuñ ko ko de ndax Macky Sall boobu ba léegi loxoo ma ñu Touba ku ne xam na ne élection yi jaar nañ mais taxul Macky Sall gagné de mais taxul loxoom deñ Touba dama naan sax Touba lay gën a defar kon nag waay waay nañ leen ko delloo njukkal ñun murid yi nan lañ koy delloowee jukkal eh bu boobaa le 31 juillet am nañ ay carte d'identité ñun xeexuñ de teyuñu ay oto xuloowuñ ni ñuy xulooyee am nañ suñuy carte d'identité nañ leen ko jël bu boobaa xoolal ticket baa ngi nii ma wan leen ko xoolal boppu fas la mooy boppu fas ñëpp gis nañ ko gis nga luy xeex bu boobaa nañ leen ko lem comme ni ñu waxee ne noonu lañ koy demee muy nii ibbi enveloppe bi dugal ko ci jël kii bi kenn du ko kole nag ku ko kole rek boobu baaxul kon buñ ko kole dañuy jël enveloppe jël bopp bi rek dugal ko dem def ko naan ci kees bi ñu xaar ngoon ñu fête suñuy victoire Macky am ndam. monsieur président nous avons un département phare dont le président Macky Sall pour aller de loin mais aussi pour amener le Sénégal à bon port. le département de Mbacké est un département phare pour le Sénégal et pour le PSE plan Sénégal émergent au plan Sénégal émergent boobu je pense que le TER le train express régional dont vous êtes le président du conseil d'administration faisait partie du plan Sénégal émergent mu amoon un candidat qui disait que bis bu train boobu dawee pour ne pas citer son nom moom santatul sant baayam kon tey nan la sant monsieur le laajal ñu bu ngeen jàkkaarloo ba xam nan la sant bi ci topp le Sénégal n'a pas besoin d'hommes violents le Sénégal a besoin d'hommes intègres de dirigeants intègres compétents prêts à servir leur peuple mais non pas des gens prêts à semer le désordre dans ce pays-là du ñu reculer et nous ne reculerons devant rien du tout le président Macky à a besoin d'une majorité éclatante incha allahu rabbi il va bénéficier des cinq députés du département plus les deux de la liste nationale pour mën a am une majorité éclatante à l'Assemblée les partis alliés dans le département de Mbacké ne vont jamais démériter incha allahu rabbi danañu accompagner suñu sœur de coalition Khady Diop mi nga xam ne tey allié la te nekk ci liste bi pour qu'au soir des élections ñu mën a ànd am ndam am na noon yoo xam ni saa bu ñu naree perte génn ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci dëkk bi jëmale ko ci suñu kilifa yi je pense que ni loolu war naa dakk te yoonu murit dañ ko war wutal barrière de sécurité ba ces vertus de mensonge ces incompétents ces sans saveur ces inodores là tëj seen làmmiñ bàyyi la kàddu yoonu murit fii nag maa ngi nuyu aussi les membres des partis alliés yi nga xam ne ñëw nañ fii tey taxaw fii wane nañ yéen ñëpp benn ngeen te yéen a ngi nekk di liggéey pour que liste président Macky Sall bii bu àggee incha allah au mois d'août ngeen gañe élection yi ci ni mu gën a rafete te am naa ci yaakaar damay féliciter aussi Serigne Galas Taltoum sama rakk la sama sëriñ la parce que waa kër que ba ma ko jëkkee jot ne ko Tuubaa day am na ñun lu ñu fi liggéey ne ko soxna Ndeye moo ñu fi nekkal ak Abdoulaye Lo daf ko rafetlu rafet la ko rafet def ci audio wax ko ma boole ak soxna Ndeye mu woowaat ko wax moom ne ko xelam dal na ci bi mu amee coalition ajana di ñëw di ànd ak moom pour ñu ngénn li xew nag mooy Touba dafa nekk la deuxième ville du Sénégal Darou Mousty gi nga xam ne bi ñun fa lañ toq jóge fa bi Thierno Ibra moom la Serigne Touba déggoon lépp yónni woon ko Ndar kon ñun waa Darou Mousty dañoo bokk ci biir Touba dama koy sama mbokk yi nekk Dakar bu ñu dee wax dama leen di wax ne leen ñun ñii Touba la dëkk Touba dañ faa am ay jër am fa ay sëriñ am fa ay mbokk te liggéey nañ yoonu sëriñ Touba yi loo xam ne lii mën nañoo daagu biir Touba mën nañ fee wax laaj fi dem coow li nag dafa bëri ku nekk di fëgg dënnu ku nekk di jóg wax maa mën a récupérer Touba Touba kenn du ko récupérer Touba da koy xam. respecté sëriñ si fi nekk yàgg seen dugg yàgg seen liggéey nekk un bon relais du président Macky Sall soo dikkee néew di doole yi fi nekk ak ñamay problème nga nekk di ko faj soo ko defee bu jóg jotee soo ko waxee boo waxee nit ñi doon jëm ñëwoon naa si ñu ànd ak président Macky Sall depuis 2014 ma toog ak président Macky Sall yoo affaire bi ko wax ma ne ko président dinaa dem Touba def fa benn tas indi la vidéo yi nga xam ba xam waa Touba laa bañ a joxe ma ne ko Touba nii la tudde dafay am ay xalif généraux nit ay sët bokk ci Serigne Touba du nga leen dégg ñu mukk ñu nekk ci ab rajo di wax ci président Macky Sall maa ngi leen di dégg ñuy wax ci affaire politique ndaxte li leen seen maam defal daf leen a doy ay taalibe yoo xam ne yii bu guddee dañuy dugg seen biir néeg yëkkati cinquante cent millions jox leen seen i addee te dugg kenn duñ bëgg kenn xam kon ñooñu seen liggéeyu maam doy na leen ba du ñu toog di wax bëgg leen keeg bañ leen ke loolu amu lan moo am mooy Touba nekk na une ville spéciale parce que titre foncier wante ñi dëkk biir Touba. ay citoyen sénégalais lañu comme citoyen nekk Ndar ne nekk Daaru Musi na nekk Matam am seen bëgg-bëgg bëgg am liggéey bëgg ñu former leen ñi fi nekk di ay cancaan nekk ci ay quartier bëgg a am courant am assainissement lu ñuy séddale Sénégal di ko def ñu boole leen kon ñi fi nekkal président Macky Sall suñu doxee li ñu war a dox ba fexe couche yooyu ñu jox leen lan leen war a jox ci farata danañ woteel président Macky Sall comme ni ko waa Darou Mousse waa Dakar waa feneen ak feneen di woteel parce que ay citoyen à part entière ñoo fi yu xam seen bopp am intelligence am lu ñu bëgg le problème de Touba c' problème de relais le problème Macky Sall président Macky Sall sax ci biir réewum Sénégal bu doon jëf rek la kon day tëdd di nelaw mais problème bi mooy ay problème de relais ñi ko nekkal ci suuf. taxawal ko ci suuf war koo liggéey ci nit ñi liggéey ko ci góor ñi liggéey ko ci jeunes yi ñooñu bu manquement dee am ci ñooñu la am mais nag ndokk bi ñooñu xamee ne garab gi ci boppam am na noo xam ne bu ñu continuer ci car yi lañ toog te ñu ngi koy dagg duñ ko xamee ñu ngi toog ci élection bii jóg àndandoo ñoom ñëpp taxaw ne il foo ñu rendre au président Macky Sall sa générosité pour que mu mën a continuer di yor Sénégal wax bi foofu la moo tax ma am conscience que ne Touba gii fois si yaakaar naa ni buñ ko continuer ci nii ñu ko taxawale ci des ci semaine bii respecter nit ñi fekk nit ñi ci suñu nekk ngeen waxtaan ak ñoom yaakaar naa ne buñ àggee ci élection yi résultat bi dana gën la fi daan am yëpp te da ngeen di gañe loolu am fii ci biir Touba moo am ci yëpp ci ci biir Sénégal parce que coow li bari président Macky Sall lu ko nit bañ bañ bañ secteur boo xool ci économie Sénégal fekk nga fa mu liggéey quel est le problème du président Macky Sall mooy réew mi dafay dox di dox di dox ba yàgg am ñoo xam ni dañ fay ñëw ne bu ñu demee ñun ci conquête démocratique du pouvoir mënuñu fay jële coalition benn bokk yaakaar donc il faut ñu fexe ba jël le pouvoir par la vie mooy jël ko ci mbedd jëm ko ci violence kooku nag ku koy jéem yaa ñàkk xam Sénégal Sénégal kenn du fi jël pouvoir par la violence par la rue c'est justement par un système démocratique te système démocratique boo ko bëggee jël il faut que indi une politique alternative sans politique alternative Sénégal yi dañoo yeewu kenn mënatu a nax boo nee bon na da indi lu ko gën ou bien lu woteel loolu ci li ñu war a xam la ngeen war cee nit ñi. soxna Ndeye noonu li tax tàmbalewu ma ci wax il fallait que ma wax lii ba pare yow ak Maas ak ab Lo ak ñi nga xam ne bii ñoo nekk seen gannaaw ngeen ànd ak ñoo da ngeen a am lu jafe ci àddina bi léegi mooy ngor principe gëm sa bopp gëm yàlla parce que yooyu su nekkul ci yow il faut ngay def ay romandaat ay labaj ay naxaate ak ay affaire yooyu mais man li tax ma ànd bi yéen. ba fii mooy parce que da ngay nu dëggu da ngay parce que man ku dëgguwul ku jubul mënoo defar man ñaari fan ñaari fan mënoo koo defar man parce que du ma wurit ma labaj du wax du ma mënut wax du ma mënta def te du ma wax loo xam ne lii liggéeyu ma depuis bi ma leen ànd ak ba léegi parrainage su ngeen am quatre mille neuf cent parrain yoo xam ne ñu doy ñoo ko jox Pape Diouf jox ko ñu Zahra Iyane Thiam jox leen ko li ko indi dañ koo jëf dañ fay ñëw di def formation en eau de javel en madar di def ay calebasse solidarité yow nii la et nga jógee ñëw formé la nga jóge fi yow tam formé yeneen jigéen kon ni di ko def di ko def ñooñu ñooñu ngay ji ñu dafay sa bopp nañ Dakar nga jël seeni kaar ñëw ñu woote fu nekk Sénégal buñ ko defee ngeen ñëw donc yéen da ngeen a yor li ñuy tuddee électorat du ay nit ñuy daw di topp ci ay oto ak di topp ci ay mbedd ay maire mbootaay lan yu yor seeni nit fu ngeen leen joxañ ne leen wote leen fa ñu dem wote fa te noonu ngeen ko defee fii noonu lañ ko defee Dakar yëmbal nord yëmbal sud Tivaouane Diacksao Kër Massar HLM 6 fépp ci Dakar ci banlieue la fa APD ak coalition Adiana def ñu bari ñuy ko ñu yëkkati seen dënd di ko fëgg ci defuñu ko ñun dañoo def politique de développement autonomisation de femmes am un électorat fidèle et sûr yoo xam ne mi ngi impacté positivement ci la président Macky Sall bi def boolewuñ ko nag ci xëccoo ay poste boolewuñ ko di xëccoo ay responsabilité parce que alliance soo ko defee ak nit mu respecté la jël la ne la respecté naa la kaay ñu ànd da ngaa war a doo war a seet dara lu la naq da war a seet lépp lu koy defaral nga koy def di yaatal koo gis mu mën a jariñ ci Sénégal nga indi ko ci président Macky Sall pour que mu ànd ak moom pour que li muy liggéey ci Sénégal mu mun koo àggale pour que Sénégalais yëpp am ci ndam bu ngeen fi ci ndaje mu mel nii cër la loolu daf fi jaar day dem feneen parce que damay def continuer ci suma campagne yéen ñëpp bu ku ci nekk yaa war ne man maa war a dem nag campagnal samay xarit samay mbokk pour que li ñoom cëraloo ñëw si ak ñoom dayloo def ko fi ak suñu parti allié yi ñu xam ne bu ngoon gaa buñ nee ñu taaru Touba bi gis ngeen ñun ñu taxaw fii yëpp ñun ñëpp ñooy yëkkati suñu loxo ne ñun ci ñëmu liggéey ci lañ bokk kon bu fi jógee war ngaa ñu ni ah, benn bokk yaakaar de gañe nañ buñ benn bokk yaakaar gañe nañ yéen ñi ñëpp toog nekk bu ngeen tasantee ak ñeneen ñi du ngeen mën a xool kon nag ku ci nekk boo génnee na nga liggéeyal sa bopp xam ni ci nga bokk da war a dem parce que nit koo gis kenn ku nekk fii ci yéen rek am na kër gu mu dëkk am na soxna ou am na ay xarit ñooñu la war a woo mbooloo moomu mooy fal ku ci jógee mën nga ni man de dinaa indi fukk kii ne man dinaa indi ñaar fukki nit kii ne dinaa indi juróom bu ngeen ko defee jour wot bi fu ngeen jaar da di gañe loolu il fallait que ma wax leen ko ca itam gën leen a feddali seen àndandoo bi ngeen jëru njuboo àndandoo di yëkkateendoo di dóorandoo ba kañ leen di jox résultat yi loo gis nag sama morom dàq ko jox ko ko ànd boo gis bu yàqu mooy laaj luñ mënta joxe mbaa nga jox joxe woo loo mën a joxe mbaa ngay xëcc cër boo xam ne bii am na ko la ko gën a mën bu ngeen intégré facteur yooyu vous aurez la victoire li ñuy def nag mooy gën a fàttali suñu kóllëre ci Serigne Touba. ca koy tàllal suñuy loxo mu ñaanal pour que réew mi am jàmm ñu dugg ci ay ak jàmm génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin te mu loolu sax sëñ bi def na ko ba pare. parce que boole na ko ak sëñ Touba léegi kon nañ bàyyi lépp ci loxo sëñ Mountakha mu réglé ko ak sëñ Touba ñoom ndam yi incha allah rabbi ma leen gërëm